di aussi sant ñi seetaan chaque fois rek les inconditionnels euh, sàmm sa kàddu du ñoom rek ñoo war a sóobu ci lu ni mel le 30 parce que xam nga sànq sànq yéen ngi ñaanal président Bougane mais ñun duñ dañuy dañuy jël yëpp teg ko ci loxo yàlla parce que tam yàlla moo fi ne. moo tax duñu sax ñaan dañuy jël yëpp delloo ko sunu borom parce que dëgg la yàlla bëgg te dëgg la yàlla di àtte te ci dëgg la nekk ndax dëgg la doon dox. jàpp naa ne kuy dem di dimbali ay askan yu sonn di leen yóbbul dund ngir ñu mën a mottaliku ci loolu yaakaar naa ne kooku lu ko waaye def rek amaana suñu borom ngay amal affaire parce que euh, kuy def lu baax moom euh, te yàlla tax payu yàlla rek moo ko ci war a fekk lu ci doomu aadama jéemit yàlla dina ko ci fekk ba defal ko ci ndam kon ñu jàpp ne président Bougane tëddam ci kaso du gàcca ndax du malfaiteur du hors la loi détourné wul rayul nit deful loo xamante ne mën na justifie lii di tëddu kasoom lenn rek moo si désolant mooy que aw Sénégal ñu dem ba doomu aadama mën a rafetlu tëju kaso doomu aadama mën a jubile ci tëju kaso mhm. loolu dafay tiital nit parce que jullit kuy tudd yàlla di di sentir yàlla yaakaar naa doom xol gu mel noonu xol bu wooyee nu ni mel ah nit ñi dañuy tudd yàlla nag tuuti ndax seen xol yi mën a am tuuti yërmande parce que yàlla léppam yërmande la mais nit bu demee ba yërmande nekkatul si moom loolu ndax mën na jàpp ndax doomu aadama la wala déet Sénégal nañu xoolaat bu baax euh, doxalit yi te ñu yéenante jàmm ndax jàmm moo gën lépp tey jii ku mën a tal boppam c'est parce que fam ne moo am jàmm maara day taal dëkk yi am génn kenn talul sa bopp kon nañuy yéenante jàmm nekk ci jàmm jëmbat jàmb ci xol yi ak ci xel yi ak ci comportement yi parce que loolu moom solo mais malheureusement dañu dem ba léegi animosité moo bëgg a dugg ci suñu xol entre Sénégal loolu du suñu man xaw ma lu tax mais loolu du suñu taarix loolu c'est pas le Sénégal sénégalais ñàkk na lépp mais ñàkk mais jàmm moo nekkoon moo nekkoon richesse am dañ kaan suñu maam yi bu ñu nekkee xale bi lañ daan wax Sénégal même bu amul alal am na jàmm parce que jàmm amul njëg mais jàmm jooju ñun ñoo koy jëmbat suñu mbir mais malheureusement lii xew nii yéenante lu bon soxorante ñuy tëj nit kaso doomi aadama mën cee kontaan loolu jar naa tiit doguma la euh, ñu ñuy signale également que euh, kile di Ameth Ndoye euh, police teg na ko loxo ginnaaw ba ñu paree ci conférence de presse bu Cheikh Yirim Seck ci kanamu benn hôtel de la place bi ñu doon amal li leen di conférence de presse bi xamaguñu nag lan moo tax police daal di ñëw jol ko daal di ko yóbbu xëy na dinañ ci am yeneen information yu yu leer ci wàll woowu noonu day faatu pour son cas man am na PV bu ma gis muy circuler hmm. un PV de police ce qui est dangereux ndax bu ñu demee ba institution bu mel ni police am lu ñu liggéey tënk ko ci kayit muy circuler dans la rue loolu aussi autorité policière yi ñoom ñoo war a am responsabilité lijjanti ko ndax aussi am na noo xam ne ci doxalinu réew ça n'inspire pas confiance mënuñu jël ay PV di ko sànni un peu partout loolu du respecter sunuy normes mais aussi du normal sunuy institution rawatina yu mel ni police wala gendarmerie ndax yooyu euh, mooy li ñu tiim ñun ñëpp ñun ñëpp tënku ci di leen jox seen wàccuwaay mais ñoom aussi dañu war a am kiiraay boo xamante ne lépp lu tàbbi ci seeni loxo day doon loo xam ne lu sérieux la du doon luy doxantu ci mbedd lu doon aussi loo xam ne dañu koy waxtaanee ci biti au contraire lu ñu war a nëbb la sinon bu dul loolu nit ñi dinañu dem ba ñeme leen ndax mit bi ci am rek ñoom moom moo leen dese mbir boobu nag pour sauvegarder ko yu mel nii dafa jara dafa jara moytu ñoom li doon lancé tey loolu dafa c'est plus que d'actualité parce que devoir démocratie liberté loolu la ñu wax ni ñoom ci lañ tënku ngir bëgg koo xeex Sénégal bu ñu xoolee tuuti li fi jot a am weer yi jot nañu waxaat ci suñu démocratie ndax li ñu fi xeex ba yegg si fii dafa mel ni chaque jour ñu di ko bëgg a en cause et loolu euh, ay tardement yoo xam ne ku nekk war nga koo mën a moytu ndax àdduna lépp lu ñuy xeex ba ak ba am ko dañu war a continuer ci yeneen jéego mais waruñu reveniraat ci loo xam ne ay acquis la woon surtout ay acquis démocratique te Sénégal loolu doonul loo xam ne lu fi bees la moo tax seen kuréel googu ñu teg li ñu jóg pour xeex warul am sax coloration lu interpeller citoyen yépp la la war a doon et pour sàmm sa kàddu pour revenir sur ta question mm-hmm. euh, la mobilisation du 30 loolu ñoom acteurs yi dañ ko war a def seen seen bien les surtout les acteurs politiques notamment de l'opposition parce que boo xoolee depuis quelque temps l'opposition sénégalaise